salaamaaleykum mbokk yi ki ñu jàkkaarloo jër ñu koy présenté nag muy soxna Aïda Saliou la grande voyante nekk fii ci parcelle unité yaakaar naa nag tey idali bi wax xam nañ ko muy doom muy léppam tey nañu seeti ko nag war a waxtaan ak moom boobu ba léegi yaakaar naa war nañ waxtaan ak moom lu bëree bari waaye li ma jaaxal mooy depuis 13 heures ba léegi ñu ngi fi bëgg a tourner ak moom mu tëju ci biir nekk ak yi nekk ñi nga xam ne tey ñooy woote nekk Europe fu nekk di wax ak ñoom dafa mel ni tey macha allah te dañoo fekk macha allah mu gën a xat comme da doon xat saa kon daa mel ni tey dañuy jàkkaarloo moom rek waxtaan ak moom ci actualité mais ba fa avant actualité damay waxtaan ak moom ci li nga xam ne tey xataay bi ñu ko fekkee yaa Aida na la. asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum diaspora maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla waaye i idaani sama doom maa lay lay nam moon la lool nag macha allah sénégalais yi namm la macha allah bi nga ñëwee ci sa yaay di la ñaanal gudd fan ak wér waaye damay ñaanal sama doom. Waly Seck yàlla na gudd fan ci daraje rasulullah yal na ko yàlla sàmm ndax man moom laay ubbee moom laay tëjee ndax moom ma defal lu ma kenn defalut moo ma wan lu ma kenn mësta wan am moo ma wan Seyduna Muhammad ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ci barke yonent bi baajo kook ay waajuram bàyyi kook ay soxnaam ak njabootam di ñaanal réew mi yàlla na yàlla ñëpp am jàmm am salaam tawféex seen yaay ñëw na. waa i daal leeru màkka gi jeexagul fii ba yi déwén nii laay mel damay belli ni ko xale yi di waxee damay belli waa ndax yonent bi bu nekkee ci xol mm-hmm. euh, bu nekkee ci xol nekk ci direct moom saa yoo xëyee ngay am façon façon yëpp nag di façon yi jàmmaa ah, mm-hmm. ak façon yoo xam ne euh, da ngay nekk nit bu extraordinaire parce que sa xol day féex mm-hmm. yonent bi moo mel noonu ci xol yonent bi ci xol moo dàq lu yàlla bind loolu nag mooy feeñ ci sama ci sama comportement waaw day feeñ. mais moment ñu gis 13h ba léegi ñu ngi fi toog mënuñu la jot yaa ngi ci biir nga génn benn moment génn sa bopp na ma Ibrahima may yi woote bi macha allah surtout Europe boobu ñi nga xam ne ñoo nekk extérieur tey moment dafa da nga jógee nga xam ne mooy naka ko ñu faram affaire yi gën a bëm. waaw euh, yokku cere dooli ñeex bi ma ñëwee gis naa yokkute. yokkute gis naa cant. Mhm. gis naa mbégte gis naa tawféex mm-hmm. di ñaan yàlla na wër àdduna waaye eh, xat gi idaani man damay xat tout le temps mm-hmm. waaye xatin bii ma xat sant naa ci yàlla bu wér a wér a wér parce que wax ñu déglu la sax yombul boole kook nit ñi jox la seeni xol jox la seeni xalaat jox la seen confiance àdduna wërngal képp diaspora bi fi mu ne am trois jours diaspora fi mu ne trois jours yëpp trois jours diaspora la mhm. waa diaspora parce que li dugg bari na mhm. ñu ngi may xaar ligne bi saturé na macha allah waaye nag meilleur bi la moo fi ne mhm. la reine de vaillante la king ajaratu king de vaillante kii mooy soxna ki waaw les vaillantes de peuple parce que maa jur centre de peuple waaw yow du ñëw tey waxuñu yow comme ñu ngi jóge ci Mawlud. Mhm. gis nañ macha allah li nga def ci waawoon gis nañ li nga def ci nga xam ne mooy bésu yàlla suñu borom yi bésu Serigne Touba yi màggal nga jóge euh, demul 20 jours sax ñu ñëw li nga xam ne mooy Tiwaawoon nga dem Tiwaawoon nag ah ñu gis la fa def ci teraanga tey lan mooy sa yéen soxna euh, yéen euh, Aïda Saliou yi bala ma ñëw ci soxna Aïda Saliou sa turandoo lan mooy seen secret gis nañ li nga def bëgg yàlla. te moom nga def laayeen yi aussi tam. bëgg yàlla. Mhm. bëgg yonent bi. Mhm. bëgg sëriñ saaliw ndax ginnaaw yàlla bu ma sama ñaari waajur defee ay jullit ak ma ñëw doon taalibi sëriñ saaliw taalibi sëriñ saaliw amul xaj amul seen taalibi sëriñ saaliw dafay am dafay am benn day day day day day vite fait mi ngi tàmbalee ñun raxas bool sax bu ñu koy def dañuy vite bu nuy jëf dañuy vite bu nuy sañse dañuy vite fait bu ñuy berne dañuy vite waaw kon ma su taalibe sëriñ Saliou yi vite fait ñun vite parce que ci dundin bi la ci yarin bi la ci éducation bi la mais ci jëmm gi nga xam ne moom lañu bëgg doyloo ko sëñ Saliou bu wax ji baree du moom waaye bu jëf ji baree sëñ bee kon loolu bu ñu ko jëlee ci moom rek tuuti rek munuñu dajal lépp ndax sëñ bi géej la da ngay tànk xajal keneen tànk xajal keneen root te du tax mu jeex waaye ci li mu suukar ci sunuy café ñun matale na nu ne bis bu ñëw am nañ ci wàll te bu nu ci wàllee ba dem ca ba ñëw dina am mucc ayib dina am différent loolu mooy secret yi saalim Saliou ci ñun ci ñun ayda yi. yéen ayda yi damay gis comme lu ñuy wax jógewum bu léegi mais bés bu maanaam euh, nit dañ koy wax ci commentaire soxna Aïda Saliou la grande vente fan la jëlee xaaj bi muy frais ci li nga xam ne mooy euh, bëgg su yàlla suñu borom beeg ak màggalu Tuubaa beeg euh, xaalis yàlla xam nga kan la àndalut ku jéemul dara waaye lu waaye jéem ci jaamam ñi suñ borom duy la te ki ma àndal mooy Serigne Saliou mooy première mandé ba tax na man jooyu ma dara parce que client yi ma yàlla booleel dañoo jàpp ci sama loxo te biñ ma jàppee dan maa gunge te biñ ma gungee damaa yegg loolu la demee. ak taalibe borom jàppandal ak njuróon yi. sëriñ Saliou macha allah ñu xam ne social macha allah yaakaar naa loolu bu ñu ko waxee rek waxit la waaye yow social nga xam 100 pour cent yow booy ne sax da def social ñun xam nañ ci dara askan xam nañ dara bu baax a baax mais yaay booy dama la nuyoo loolu rek mais tey ñëw ci benn attaqué boo xam ne yaakaar naa mooy lëmbee li nga xam ne mooy Sénégal ak aduna muy combat Balla ak ki nga xam ne mooy Boy Niang ah yow nag ñu xame la am na loo ci wax te yow yaakaar naa loolu daawoo dem vaar ñu xame la leen Eumeu Sène ñëw na fii ci combat yaakaar naa am nu te dëkk Pikine te ñu gis bàkki démb nga dugg benn vidéo nga ne Balla Gaye day daan ki nga xam ne mooy Boy Niang te ah Eumeu Sène Pikine la dëkk te Balla Gaye yëppul lan moo wax nga war a wax nga tax nga wax loolu. non waxuma ne mooy daan. Ah, parce que dafa am lu may faral di wax. Mm-hmm. maay yaayu grand yi. maay yaayu jeune fille yi. mais maay rakku paa yi. te maay rakku yi loolu tax na réew mi fi laa bokk fi laa amee bulletin de naissance laa juddoo mais Guédiawaye Parcelles laa dëkk mm-hmm. fi laa amee njaboot mm-hmm. te yàlla dafa dogal fi ma tollu ci réew mi waratumaa wax lu nu may xeebee ah, waratumaa wax lu nu may cofe mm-hmm. kilifa diina gi toog di seetaan soxna de Saliou daf ma bëgg ba sama vidéo kilifa gi daf koy xaar pour recevoir ko pour seetaan ko kon war naa mesurer samay parole ci yenn yi ba duma def lu nu ma xeebee bokk ci réew nag leen lay xeebee bokk ci naa na réew mi war a toll ñaari doomi réew di bëre Balla Gaye doomi Sénégal la Balla Gaye doomi Géejawaay la waaye booy Niang doomu doomu Pikine la Pikine ak Géejawaay cent franc moo koy paas boo bëttee mbedd yi tout près da ngay jege bu nu amee naqar dañu koy bokk daje fa bu nu amee bànneex dañu fay bokk daje kon jombale naa sama bopp xool Balla Gaye ba mu neex ma ma ni Balla Gaye mooy daan Boy ñaa te Boy Niang ami mbokk ami xarit ami soppe warumaa xool Boy Niang ba mu neex ma ma ni Boy ñaa mooy daan Balla Gaye su ma ko xamee dama koy xam lu xew ci réew mi xam naa ko combat bu ma seet dama koy xam bu jour bëre ba jotee man boo xam ne ñëpp toog nanu xalaat yëpp dem nanu nit ñi koo rek kaw a des wure wa dem na këng waxi mag dem na ndenkaane mbëri summeeku nanu kenn talatul di xool lu internet wax lu dul da ngay xool li la télé bi di wax man damay stati mbër mi war a daan mbër mi war a daan dama koy stati su ma estatee samay doom uh-huh. samay xarit samay soppe daa di jël nag bu doon ne kuy war a cotiser nga wala kuy war a teg da ngay bàyyi loolu xam ne lii lii moo fi ne loolu njunju day doy boromi xel ndax mag mu baax noonu lay doxee cim réew waaye jombale naa fi ma toll ci réew mi mm-hmm. ni nu ma bàyyee xel mm-hmm. ni nu ma sóoraale ni nu may seetaane ak ni nu ma soppee ay soppey Balla Gaye sopp ma Balla Gaye di sama dëkkandoo ay soppey booy ñaar bëgg ma ma juddoo pikin mm-hmm. man du sama cër may taxaw ci internet bi dara jaralu ma ko ci àdduna bu loolee day tax ñaari mbër yi di ñëw ci man kenn du ñëw naan taxaw naan diw mooy daan di tas yaakaaru ñu naroon a jënd billet di tas yaakaaru seen i mbokk seeni xarit te ñëpp miin nanu lu ma wax ci réew mi mu am kon su ma waxee mbër mi mooy daan mbër mi laay njëkk a yàqal mën naa koo tee añ mën naa koo tee reer mën naa dem ba ca combat ba waroon a génne saraxu fukk génne juróom ne soxnaay da wax na ko kon lu may wax damay wax loo xam ne bu nu ko non non non non tollootuma foofu damaa war a defar waaye waratuma yàq réew mi damaa war a boole damaa war a taqale maa war a defar ba mu baax waaye warumaa def loo xam ne ku ko dégg na accam wala xaar ma ci doon noonu damaa ragal defet damaa ragal gàcce taalibe sëriñ Saliou la bi instant yi lëmbee waaye ci jàmm lay njëkk ci jàmm lay mujj li sama wareef rek xoolaguma loolu nag mhm. dinaa ci wax ci yeneen i vidéo mais tey fi réew mi toll lii sama wareef ci réew mi mooy bu bëri yi amee ni may defee ci état bi laay defee xam nga état yi dama naan maire yu bari dañ leen di raxas bu doon mbër yu bari la dama naan leen mbër yi war a dëkke fii bëri Modou loo Ama Baldé dama ne du am deux mille vingt deux mille vingt ñu dem deux mille vingt ma leen kenn ko ci tëgg ñu dem deux mille vingt deux ma ni bëri bii tas koo gën ndax du bëri te yaakaar naa ci tas la mujj bu lee loolu la danaa ca wax waaye ki yey daan ah maa mag loolu. yaa ngi mu ñëwaat rek état bi rek am na loo waxoon yaakaar naa eh, jamono yi passé ci état bi. ci li nga xam ne mooy ministère yeeg affaire yooyu ni ñu war a raxasaat automatiquement noonu la demee ba ci nga xam ne tey mooy kan Matar Ba ministre euh, des am na koo xam ne tey euh, sport lañu nekk am na koo xam ne tey instant moo moo ko wut toogu fi tey te ñu ngi jëm ci li nga xam ne mooy coupe du monde tey say doom comme ni nga Wally Seck nekk sa doom Sadio Mané sa doom keneen ak sa doom tey lan nga gis ci coupe du monde ak lan nga gis instant nii ci li nga xam ne mooy ministre bi toog instant yi xalaat ne mu ne tekk nag defagul dara mm-hmm. mais lan nga xalaat euh, def ay saraxam parce Matar Ba bi ma leen wax ne nen day wàcc mhm. boobu kenn xalaatu koo wax yooyu xanaa bi mu egg see jaaxal na ñu bari tam mbette a dikkee ci senegal yi mhm. euh, ba tax na footballu senegal kooku amee ñi ma ci war a waxal maa ngi ciy wax ak ñoom kooku amee ak ajaratu soxna Aïda Saliou la king ni ma defoon ba ba ba bëri ba match bi egg fi mu egg mhm. chaque jour je suis ak sénégalais yi fii la xewee ci sama réew. ba léegi da ngay liggéey ak yi ak ñoom maak ñoom ba léegi je la là. da waaw te liñ ci war a liggéeyaat ñi ngi ciy war a dem ak yeneen loolu incha allah après dinañ ci après loolu dinañ ci wax. waaw lu ne mën lu ne mën naa lu ne mën naa ne ma ne lu ne lu ne mun naa nekk ak king de vaillante ñooy leen maa ngi ci biir équipe bi eh, maa ngi liggéey ak sama senegal sama réew maa ngi liggéey ak senegal sama réew poos kenn du ko yuri kenn du yuri poset ba ubbi ko ba ni ŋàll la falaayam falaayam na xel yi dal nañu ànd ñun ñëpp ñu ñaan xam ni suñuy doom ñoo dëgmal mbir nanu ko defee ci Coupe d'Afrique nanu ko àndewaat ànd ba rafetoon na kon nan ko àndaatee noonu te xam ni lépp Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal barki démb barki démb def naa ko ak waa Improd waxoon naa leen ne match bi muy football maa ngi defoon vidéo bi yaakaar naa dimanche ne woon leen dina fi football mardi bu fubalee dina fa def bii bu àdduna bi yëpp di coow vidéo boobu mu ngi improt te yaakaar naa bi bi xale yi nee nañ ma am na du lépp du sama njàmbaar liggéey la rek boo xam ne suñ borom moo ko natt ci sama jëmm ji ma judduwaale ko ci réew mi muy avantage su yi kon sant la rek du man de yàlla la beneen bi ci des mooy score match fii ci réew mi kenn rek a ko fiy joxe muy soxna Aida moom Serigne Saliou man maa laan la demal vaar maay dem télévision ni ubbi ligne bi lii man la ko yàlla jagleel ku mën defal ku mën defal. waa xam nga man bi ma juddoo nag ba def yu temps laa daan taxaw diggante ànd juboo sancaan benn baraak taxaw ci buntu stade yi di def sama ñetti bantu ba léegi sama këriñ wax la lii tey am na équipe yoo xam maa ngi liggéey ak ñoom am na benn équipe boo xam ne naa la wan mayo yi mayo yi rek lañ may yónnee ma fanaanoo ko su ma xëyee may yooyu ku ko sol bu dul trois personnes di deux personnes ñëppay dugal bii te ñooy gañe may yooyu mun koo sol jàkkaarloo kenn ci biir stade te dugaloo. naa la wan léegi bu ma paree naa la wan vidéo bi nga xamante ni nga xool. nga xool équipe boobu nga laaj ko fi mu ne nii nawetaan yi mi ngi ci ñaata ay match te mi ngi ci ñaata ay but waaw loolu yëpp nag ndimbalu yàlla la parce que yàlla muy xar jaamam ñun bi ñuy juddu suñu borom kenn da ngay def écho pour xam doom bu góor wala doom bu jigéen quant à que modification boobu suñu borom mën def ñi ñuy ay góor def ñi ay ñu jigéen def ñi ñu njool def ñi ñu gàtt pour pourquoi pas yàlla moo ñaalewul ñun bu ñuy wàcc àdduna ak li mu ñu taxañaaleel ñu indi ko taxañ bi nag cornet bi bu yegsee ba ci senegal àdduna wërngal képp mu wàcce ñu fi def ñu ay doomi réew mi li mu nu indaaleel il faut que ñu wane ko looloo waral soxna Aïda Saliou nekk kii mu doon te ki ma yaakaar ba tey ba tey ci subak tey gii jóge nekku fi làqu na yàggu na mhm. tuuti yàggul mais li jébbalu ci ginnaaw Serigne Saliou mhm. ñaata doomu aadama ñu jébbalu ci ginnaaw Serigne Saliou bi mu fi nekkatul ñaata génération moo fi am ñaata ndawi daara yi Serigne Saliou a fi am ñaata groupement lañ fi formé waat ñaata doomu aadama dem tab toog ci xabru Serigne Saliou ñaan ne ko man jébbalu naa ci yow doon naa murit àqan kon bu nu xoolee loolu xam ne nit soo fi nekkee munoo fee jóge te ki ñu dimbali ak ki ñu jàppale ak ki ma yaakaar daa mën lu ne ci waayam moo ma dimbali moo ma dimbali mën na kanama mën na ginnaawam li def ci ginnaawam bi mu toogee sax am na loo xam ne ndeysaan moom moom moom moom daal kenn xamul lu mu doon daal kenn xamul lu mu doon mbàkkee ñaan nañu ko yàlla fayal. yaay les centres du peuple saa su ne comme ni ma koy waxee rek le king. doom ju sedd sama xol macha allah euh, musique sénégalaise macha allah muy Wally Ballago tey nag yaakaar naa toogoon na da waxoon toogoon na 3 mois du tëgg fi nga xam ne mooy Sénégal euh, le 22 ñuy sargal Papa Thione muy loo xam ne fële ca King Fahd Palace en tant que yow euh, yaakaar naa nan nga ko dundee ak nan nga war a taxawaay taxawaay boobu. ah xanaa nag fas fa yéene fas yéene. papa loo xam ne waroon na ma idaani waroon na la waroon na kee waroon na kële waroon na grand waroon na petit waroon na maire ñu dund tey ba woote ne papa coon la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy sargal kin fak place ah kooku dama yaakaar ni sénégalais yi moment bii may waxee ak yow nga xam ni képp koo xam ne doomu sénégal nga ak doomu international yow sa xel mi ngi doon xaar ban bis mooy bisu papa mm-hmm. kon bu bis bi yeggee génne génne yu bees yi ñawlu ji yu bees yi fas yéene def garaa mbubb yi ba mu jub def mbubb yi ba mu baax la ma soo kol yi ku mën a teel a dem teel a la dem man de lu waay mën ci bis boobu na ko def ki ñuy sargal mooy Sénégal ki ñuy sargal ki sargal mooy les meilleurs ki ñuy sargal mooy papa yu ndaw ñi mooy nijaayu xale yi mooy góoru jigéen ñi ki ñuy sargal mooy ku liggéey ci liggéeyam révérence boo xamante ne ni tey moo nu fi bàyyil mémoire boo xamante ne ni ku nangu ku mu neex ak ku mu neexul moo fi ba tey li bégal mag ñi bégal gone yi dugg ci xol yi def fi lu baax wax fi lu baax social ba àdduna bi yëpp xam ne social na produit Papa Thione moo toog tey ci réew mi kenn ku ne kenn ku ne yëg nga sa bopp ci Waly Ballago à cause de Papa Thione à cause de Diaga dama ne ku niwul ku niwul ku niwul yàlla ak diw doo ne yàlla ak yàlla ndax ku santul nit doo sant yàlla Papa Thione nekkatu fi de waaye sooy tegee son Papa Thione tey jàppal ne bi nga xëy soo ba léegi dund nga li la Papa doon wax boo yeewoo sa néeg tout le moment tous les nga déglu Papa nga mel ni yaa ngi dund Papa Thione kooku du fay ba abadan daay man kon ay référence yu baax ku mustaway ba daraaye ku mustaway ba jéggi yoon wi ku mustaway ba wax lu lu lu lu yàq doomam ñëw taxawal fi lii mu fi taxawal yàlla na sut baayam aw fan waali yàlla na sut baayam ay fan yàlla na duble ay fani baayam doublé ko ak jàmm duble ko ak wér duble ko ak kattan duble ko yàlla dëbb ko kattan goo xam ne waali yàlla na yàlla samp ay tànkam waali yàlla na ko yàlla teral waali yàl na ko yàlla suturaal yàlla ko yàlla jàppale ci darajay rasulullah waali daa teral ku doy waar waali daa teral daa teral waali li teral nañ dem feneen bu dul loolu émission bi damay damay yàq émission sama xol day tooy barke Serigne Salim. ñu dellu benn akaay muy li nga xam ne tey moo faral di am Sénégal euh, yàqante bi weerante bi audio yeeg affaire yooyu bi nga xam ne mooy euh, diggante Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne moo jëm ci Ousmane Sonko muy audio boo xam ne vraiment dafa ñaaw ñu ciy ñu ciy laaj ñu boobu léegi ci ci Sénégal yi ci wax lu nekk tey en tant que yow lan nga gis ci audio tey wax ñaaw ci Sénégal yi. Cheikh Bara mu ngi mu ngi lëmbe waa xam nga dañoo nekk ci réew moo xam ne technologie bi dafa dox su ñu bëggee modifier Soxna Aida léegi mm-hmm. yàq ko ci ku am ku ak maanaam koo noon bu taxawoon di xaar ku yàq Soxna Aida bu déglee léegi benn noonu Soxna Aida am lu mu def Soxna Aida léegi mais moom loolu rek lay xaar moom dégluwu ci ndax soxnaay da la wala du Soxna Aida lim ci déglu rek mooy yàlla na tombeek mu doon soxna Ayda wala mu xaw a nuroog moom gis nga bët yàlla ba mu nu koy bindal ndokk ba mu nu ko réglelee ba mu defal nu ko wiri wiri te munoo xool ci ginnaaw ku yor bëti kanam munoo xool munoo teg ba di ci sa ginnaaw te boo gestuwul doo xool ci ginnaaw kon boog nañu doxal ki ne ci yoon wi na tàllal te bàyyi xeer gis nga képp ku la sànni xeeru ginnaaw nga for di ko delloo yow doo yegg fi nga jëm baa mën ngaa faqastalu vision bi foofu la toll ci réew bi dañoo nekk ci réew moo xam ne fi nu toll nii tembe mooy da ngay mel ni waali sekk sama doom ci yor sa juróom-ñaari kilo yu muut saa yoo ci nammee dara woo ko ne ko jàllaleel ma muut ndax ma am muut waaw muut mooy yoon bi day jàllale bag di jàllale oto lépp lay jàllale waaw dangay ngay dem ca Wally mu jox la ci muut gi bu la joxee ci muut gi da nga téye sa muut fu la neex jëm ak moom loolu rek lay dimbali gis nga fi mu ne nii bu dee ku la sànni xeer nga delloo ko ko lu waay wax fi nga wax ko Ousmane Sonko Baara Ndiaye Ousmane Sonko keneen ak keneen ak keneen fi mu ne nii lu rattax bëgg nañ koo yàq ci réew moom lañ toll fii lu fi rattax nekk laalo dinañ ut ki la suuf ne ko ca pëy pour mu ñagas nangu lu ñu kenn amul koo xam ne ñu lay nangul ci réew mi fi réew mi toll nangu lu ñu kenn nangu lu ñu kenn sutumaak yàlla boo baax boo baaxee rek am nga problème boo baaxee rek yow am nga problème yow na la wóor na ñu ngi lay dëkk-dëkkal ñu ngi lay pax-paxal ñu ngi lay kàmb-kàmbal Cheikh Bara Ndiaye nag yàlla dafa dogal man ak moom xamante wuñ waaye xam naa ko ndax daf maa defal taraanga ci bis bi ma ko soxlaa ndax Cheikh baara daa bàyyi ba ma dem màkk ba ñëw ma woo ko téléphone ut numéro jël ko sama benn doom woo ko ni ko damaa jógee màkka man bis boobu rek laa amoon nag Cheikh baara ñëw fi teew fi def émission ak 2S ba pare jubal si si man jox ma xaalis bu takku ak ñëw jëmmal ma jëmmam ci loolu mënu ma koo fay jëf daa mën a rëy loolu bis ma demee si ji bayti laay moom ak Serigne Fallou Lo gayndel leen yam ak lu yàlla bind ak Cheikh Issa Ndiaye borom jaas ci seen ñett ñett ñooñu waaye ñuy ñetti référence ci réew mi Cheikh Bara Ndiaye ca la mu nekk doo ko ci dégg ca lu ñaaw kenn yabu ko Cheikh Baara Ndiaye laa wax de man maa ko wax Cheikh Baara Ndiaye doggaguma ko ci luñ koy joxoñe baaraamu tuuma mu metti sama xol parce que la ma jëfal laa wax munoon na maa bañ a ñëwal de waaye dafa ñëw ci sama bis Cheikh Issa ci ci aéroport la ma fekk ànd kook man jëf yooyu laa bëgg yu baax xeetu yu baax yooyu teg ci sëñ Fallou Lo gayndeel moom daf maa defalee jëf yoo xam ne mënatuma koo fay mënatuma koo dabu sama doom sama xarit sama mbokku taalibe sëñ fàlluloo gayndel sëñ fàlluloo damay dem màkka mu ñëw njëkk ci man ci taraanga ak ñaanal ma saa yu ma amee naqar sama kër su ma geesoo gis sëñ fàlluloo mu gaare otoom sëñ fàlluloo su ma ko nee maa ngi ñëw sax mun ma bul ñëw maay ñëw dina ma ñaanal ñëw sama kër tàllal samay loxo ñaanal ma ñaan ku mu tibbee ci xolam sëñ fàlluloo dina ma jox alalam sëñ Fallou dina ma jàppale def na ma jigéen def ma rakk def ma yaay yal na yàlla guddal fanam te xoolal ku ñàkk jot la ah, daara yi rek a ko ñor barke Seydina Mohamed kooku doo dégg ci moom lu du moo jëf lu baax waaye doo dégg ci moom leneen man ay référence samay xam parce que sama deret moo bëgg loolu taalibi sëriñ Saliou laa. comment ñu jàll ci beneen actualité euh, euh, ku am société bu yeboo nga jóg ci. tey nag émission bi li ko waral dëgg dëgg dëgg mooy képp koo xam yor nga entreprise muy lu ndaw booy defar sachet mbuusu juróom sax jógal ci sa entreprise balaa bi bi muy ñëw ci oto yi la xirtaloon boppam ci tali bi taw bii ñëw bari na lu mu raxas taw gàmmu gi bari na lu mu raxas waaw guddik Seydunaa Muhammad la Masalikul Jinaan mën nañuy def la ñuy def Touba di def la ñuy def Tiwaawan di def la ñuy def Kaolack di def la ñuy def te yàlla du am lu mu ñëwee ci këpp ci tali bi tali bi raxas nañ ko tali bi raxas nañ ko dina wàññeeku waaye ku yor société ngay branché ñaari fil muy jël ay vote jógal ci sa usine yow eh, boo jógul ci sa usine bul xeeb sa société soo mënee branché compteur rek muy jaarale fil di xëcc lu am doole jógal ci sa société sëpp nag la ko bënn ngi ci biir ku ma woo ma wax la luy sa sarax képp ko yor société usine société bu ndaw ngay branché ci courant muy jël ay vote jógal ci sa bopp. Ah, man maa la wax lii man lakk gi ku am sa alal te bëgg koo sàmm te moom ko jóg ci tàkk-tàkk jëf-jëf nanu maa woo ma wax leen sarax yi du ma waxantu de dem leen vaar nag balaa kenn dugg ci samay mbir demal vaar yëndu samay waxi démb indi ko waxi tey waxantuwuma de pour charger non fees waaye ku ñëw ma dimbali la ku ñëw ma dimbali la clients yi leen rek laa leen di ñaan man sama yëf ku yàkkamti bokkoo day xat saa yu ma woy dinaa la raccroché nag benn numéro laa yor musuma ko changé bu dee pommade ak butéel sama biir kër laa koy jaayee déw ma fenn uti ma bitik lu lamb lañuy ñuy man stoppé wu ma damay liggéey mu jeex ma ne la xaaral nga def sa commande. yaa ngi koy tey ñu dégg xew-xew am fa la jëppee muy am tey ku fa génn imaam yaag yëpp euh, yaakaar naa ci lañ bokk sax tey nan nga ko euh, jàngate yow ak euh, lan nga ci wax tey. non loolu man awma ci jàngat lu dul di massawu góor googu di ko ñaanal mu doon liggéeyal yàlla sunu borom ba bëggoon ca fu mu koy wéttalikoo yàlla na ko wéttaloo àjjanay firdawsu ñaanal njabootam yàlla may leen xolu muñ waaye pour que ñi ko rey ci du fi jullee ak di nga fi jullee ba tax muy wéttalikoo boppam ci yàlla léegi loolu dama koy bàyyi ak waa ànd defar jikko yi ndax damay gis ànd defar jikko bi nu koy wax wax na nu lépp ci réew mi lu fi xew ñu gis leen ñu génn mais il est temps fii lañ leen gën a soxlaa ci fi yàlla yi ci néegu yàlla bi fii lañ leen gën a soxlaa ma bëgg waa ànd defar jikko yi nanu génn il temps génn jot na mi ngi ñaaw nag te ñaaw na ba noppi nanu génn wax jot na fii lan leen soxla te affaire bi def na durant que une semaine ba dugg 10 jours mais maa ngi vérifier rek mais déggaguma dara nanu génn génn jot na dafa am génnukat ñoo xam ne buñ ne ñum lii mooy seen rôle pour ñuy génn te ñu ngi leen di gis ci lu nekk ñu ciy génn ñu ngi génn ci lépp ñu ngi génn ci lépp mais lii lu ñor a génn la te réew mi minimisé nañ ko gis nga village ak yoonu àll bi fa la gàncax yi ñuy dundee di ñoree nañ leen jox suñu seen cër jox leen seen warma ay jamono ci jamono yëleen commencement nawet bi am na benn poto lampe courant bu maas benn xale ci dëkk bu ñu naan Mbawoor ca ginnaaw Kébémer sama dëkk de dëkk booba mhm. courant jeeg buy jeeg bu yor doomam courant maas na ko ci tool bi ba mu faatu ba nu denc ko te dégguma ko ci wax lii dalaat na yoonu yoonu yoonu yoonu yoonu Pire Pire sama dëkku maam la Pire Ndoomoor Ngaay Mexe yooyu yëpp samay dëkk la dama gis ne nag jot na nanu wax eh ma ne nanu wax nanu wax mbiru diine la nanu wax ànd defar jikko yi nanu génn mi ngi ñaaw de te ñaaw na ba noppi du ma ci débat nag maa ngi déglu laaj ma lenn mi ngi ñaaw te ñaaw na ba noppi nan wax kii kilifa la da doon wéttali koo yàlla sunu borom déggaguma benn réaction nag na état bi wax na ñëpp wax wax jot na ki nu rey kilifa la da doon wane diine lislaamam da doon xeex yoonam da doon ut fu mu làqatu pour ñaan yàlla sunu borom fu mu làqatu pour yokk xeetu Seydunaa Muhammad jàkka du doy jumaa du doy ku ko mën a tabax te góorgóorlu ca nanu ko dimbali mu màgg sunu ndaw ñi gën a xam seen diine mais bu nu ko rey mu niil nii waxuñu ci dara attaque maa la dañ ne attaque maa la da doon dañ ko doon attaqué ba mu dee ci ci na nanu vérifier loolu wax sénégalais yi lu leer ba ba léegi na maa ngi ne tekk di xool. dama ne lu génn lu génn ñu gis leen fekke nan fi lu bari ñu lijjanti ko ñu lijjanti ko man duma lim waaye dama ne ñor xomm gaa ngi nan ko régler mi ngi ñaaw de mi ngi ñaaw de te ñaaw na ba noppi ndax def na diiran te kenn waxu ci mi ngi ñaaw nanu ko régler na Aïda ah, ah, kenn waxatu ko la grande défaillante de peuple ñu yaakaar naa mu ne nii butéel bi commentaire bu ndaw laa ciy def parce que ne dama ko xaw a manqué le maa ngi defar gis nga tey li fi rang ci ni te amuñu fi ne fii ak deux jours trois jours dina am dama mm-hmm. buggumaa def publicité bi nit ñi di daw si di ñëw te duñ ko am moo tax fi ne. commande yi ma jëloon ñooñu laay livrer seen i bagage ak GP yeeg yooyu waaw te bëgguma nit paas ba ñëw sama kër te amoo pomade yi bu góor am na bu jigéen am na tey laay doog a pare waa mi ngi nii jigéen ñi dënn weer yooyu ku ko bëgg seet si ma fi maa koy jaay yow mi tuuti ne dugut boo naanee sama li bi toj na toj na toj na kii wër na toj na fu ne kii toj na néeg bu ne toj na fépp fii toj na fépp yow mii jigéen am gémmañ boo xam ne dafay am odeur oh. ngay déranger koo bëgg a waxtaan te xam nga waxtaan léegi dafa jafe ndax kuy wax ak nit ba nga koo déey te léegi déey dafa manqué ndax koo déey mu ne nii yow mi koy def neexu la ki ki ki la mënut a supporter neexu ko ndax xel yi dañoo gaaw a teey boo ñëwee ma jaay la am naa ay butéelam mu raxas ko ci sa biir nga dem ko toilette mu set ndax liy xeeñ ci sa butit yi lay jaar di wër di yéeg ah, non non da ñu dàq boros gën a silwise a socc dàq yëy goowe ah, ñoo gaaw am odeur ñi gën a set nag la daal maa la wax li day dal góor dal jigéen ñu set lay dal ñu set ñu silwise ñu am talent ñooñu lay dal lii tax na léegi noppi gi bari muut muut temps koo gis rek mu ne moot wala muy audio affaire bi la de liy gilli moo waral muut bari muut hmm? réew mi bu nu xefee dañu koy gerte caaf mbaa nu maafe ko mbaa nu sulluxu mbalax ko du nu ko nangu nag réew mi bu nu xefee danu koy maafe mbaa ñu sulux mbalax ko te lii ma gis ngelaw lii ngelaw lu am tuuti poussière dina jib ngelaw ngelaw dina jëlti jëlt ngelaw ngelaw ngelaw dina jóg ngelaw loo xam ne bu jógee ba pare siburu day bëri waanent day bëri ah waanent day bëri siburu gémmañ gu lawe tànk yu bañ nanu jóg sarax rek a koy téye indaale la la mu indaale bu pare dina bàyyi ci senegal feebar boo xam ne dinañ ko tudd léegi bala muy yàgg feebar bu doy waar. feebar boo xam ne dina doy waar mi ngi ñëw de mi ngi ñëw. mi ngi ñëw mi ngi ñëw mi ngi jóge ci sow bi mi ngi ñëw. mi ngi ñëw ngelaw li dafa am lu mu àndal ah. dama ne ku am doom jog ci feebaru parental yi xale yu ndaw yi seen biir yi di daw seen biir yi di funki. ñuy dem toilette lu bari seen biir di daw dina dikk réew maa ngi yëngu de maa ngi yëngu nag maa ngi waxoon naa ko fii jamono dem leen vaar basalaam. non man ñaanal ñëpp yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla muccal ñëpp waaye réew mi ñu jëm dugub bari de. dugub waaw de.